aleykum wa rahmatullah mbokk yi vidéo bi pour Moustapha Diakhaté la moom mi nga xam ne mu ngi wax wax ju doy waar jëmale ko ci waajuri yonent bi Moustapha jégalul ñu jégal la da juum waaye tuun bi nga waxee damay waxi tamit ne danga nga ëppal da bew yonent bi du ko ñuy foyee ay waajuram ñu baax lañ te ñoo gën say waajur gën gi ñu gën say waajur nag ma jox la ci benn exemple doy nga waar doy waar goo xam ne bew bew goo xam ne ba toog ci plateforme boobu di wax li ngay wax say waajur sax bu ñu déggee li nga wax amal nañu rëccu lu ñu la doon jure waaye nag waajuri yonent bi jur nañ ku gën ku gën jikko ba àdduna yëpp nangul ko ci jikko ju rafet koo koy sallallahu alayhi wa sallam kon yow ci kanami yonent bi ak say waajur du ngeen dara yonent bi mooy lépp sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla taas ci barke jërëjëf